FPGW fédération des président groupe whatsapp ci xibaar yi tey la dimanche di ñaar fukki fan ak ñaar ci mois de octobre deux mille vingt trois moo jot ba teg fukki simili ak juróom-benn fii ci Touba waa jëm na bii euh, seize heures di ñeenti waxtu ci ngoon jot na ba teg euh, fukki simili ak juróom-benn fële ca Israël ñu war a dikk ci euh, jàppante yi nga xam ne dox na ci diggante Israël ak fële di bande bu Gaza. loolu nag eh, ci histoire politique ndax xam ngeen ne laataa histoire politique bi dafa laale ak eh, histoire religieux maanaam dafa am lu leen lënkale ci wàllum diine loolu mas nañ cee dikk waxtaan ci muy base bi nga xam ne juif yi am nañ ko le ci biir Israël ñu am fa doole ju tax ñoom ñu jël foofa jàppe ko seen dëkk boo xam ne ñoom ñoo ko moom ñoom juif yi ci biir loolu tamit mas laa leen wax ne même ni fa juif yi amee base ndax xam ngeen ne lépp lépp seen yonent yi nga xam ne ci juif yi lan bokk bokk na ca dépp euh, ca Souleymane jàpp ca Daawuda ba ci Yusufa waaye ba ba ngay agsi ci yonent yàlla Moussa ba ba ngay agsi ci euh, yonent yàlla Aysa ñoom ñëpp foofu lan jaar bi ci mujj rek muy euh, yonent yàlla Aysa xam ngeen ne Batleme maanaam muy dëkk bi nga xam ne foofu la Aysa juddoo loolu la ci biir Euh, Palestine googu la xewe foofu la xewe ba tax na euh, chrétiens yi am na fa wàccuwaay bu mag maanaam li ngay dégg ci histoire waa lu ëpp foofu la xewe ba ni muy demee fële ca Nazareth ñibbisi euh, ba ni ak mujjëm foofu la ca Galilée yooyu yëpp mu ngi xew foofu ci biir Palestine bu dee ku mel ne juif yi tamit aussi xam nga ne yonent yàlla Moussa moom histoire am lu ëpp foofu la Souleymane temple bu Souleymane yooyu yëpp foofu la nekkoon ñoom ñu am fa wàccuwaay bu mat sëkk ba xam ngeen Euh, mur de lamentation bi foofu la nekk juifs di fa def seen jàmm yàlla mu nekk bërëb bu gën a màgg ci ñoom ñu fay daje at mu nekk daanaka mën na noo jàpp ne ñoom foofu seen dëkkuwaay la ñoom ñoom fa wàccuwaay bu mag ci biir loolu tamit jullit yi am fa wàccuwaay ñoom it bu yaatu ndax bokk na ci li koy firnde rek mooy masjid Aqsa bi nga xam ne xam ngeen ko le voyage nocturne mooy Ehm, wuy jikk Sayyiduna Muhammad suñ borom ginnaaw bu mu ko wooloo muy Isra wal Mihraj bi jóge fële ci Màkka ñëw ba foofu la ci Palestine eh, jiite fa julli yi xam ne démb ñi topp bi yéen ngi doon gis wala groupe bi benn vidéo boo xam ne ñu ngi leen doon wan eh, biir ak Aqsa ni mu mel ak eh, doj bi nga xam ne foofu la yonent bi taxaw ba jaar fi yéeg ba foofu sax la ñuy baabu Euh, sama maanaam buntu asamaan mu dem yéeg ba nañ ko joxe juróomi julli nga xam ne bokk na ci li gën a euh, seer ci jullit muy waxtu julli juróom ak yeneen yi nga xam ne bi mu wàccee ci kaw suus la ko indi mu nekk wàccuwaay bu rëy foofu la ca Israël jullit yi ñoom am fo place boo xam ne dara mënul tax ñu woon ko ginnaaw ak jàppante yëpp loolu dafay bokk ci aspect politique bi loolu la ñuy wax trois religions monothéisme maanaam ñetti diine yoo xam ne bu ci nekk euh, wax nañu ne ñoom yàlla moo leen yónni ñu ñëw ñu bokk benn gox te ñoom ñi ñëpp pratiquement kenn ci ñoom euh, la mu nekk bawu ko muy juif ñoom ñoo fi jiitu la ñu nekk dañ caa sax ba fi chrétiens yi dikkee itam aussi ñoom it la ñu nekk ña nga ca parce que ñu fàtt rek ne chrétiens yi mujj si yëpp chrétiens yi mujj si yëpp bu nu seetloo ñoom. Euh, ay juif lañ woon maanaam juif yi ñenn ci ñoom ñoo dugg si waat nekk ci chrétiens yi ba jàppante ak laalante yi am ba sini mbir fa mu mujj ginnaaw bi tamit jullit yi daal di fay ñëw am fa ñoom it wàccuwaay bu toll ne bii fa ñii am mu mel ne kenn ku nekk ci ñoom ci gàttal am nga fa loo munul bàyyi loolu ci aspect religieux bi la boo demee biir euh, euh, Palestine ci fàttali des ci dikkaat léegi ci histoire politique bi waaye ñu bëri dañuy laaj Palestine ak Israël ndax dañuy ñaari dëkk yu bokkul déedéet lépp benn dëkk bi la woon Palestine maanaam Israël dañ ko jël génn ko ci biir Palestine te loolu bi muy am yàggut ONU ñoom ñoo ko amal waa ONU ñoom ñoo jël Israël génne ko ci biir Palestine waaye lépp dëkk bi Palestine la woon ba noppi Jérusalem gi nag ñu ne kenn moomu ko ci yéen maanaam euh, moomeelu yéen ñëpp la maanaam muy lu tolloog ci baytul maqdis ak euh, diggante boobu te xam ngeen bayti maqdis sax boo fa nekkee da ngay daanaka da ngay xanoo janoo ak euh, miir de lamentation bi nga xam ne juif yi ña ngi fay nekk mu mel ne daal réew moomu dafa mel ne pàkk bu nu barkeel la ndax amul benn yonent boo xam ne yàlla yónni na ko mu ñëw ci kaw suuf te jaaru fa ci zaahir wala ci baat ñëpp daje nan li koy firndeel moo yonent bi mu fa dikkee mbooleem yonent yëpp Sayyidina Muhammad nee na jiite na leen fa laataa muy wuyu ji borom kon loolu mooy tekki ne ñëpp ñëw nañ foofu loolu mooy aspect religieux bi. ci liñ ci mën a tënk mais bu dee aspect politique bi nag euh, dañuy xam ne lii lépp ay managage la ak it euh, yoo xam ne du lu kenn mën a bàyyee moromam mooy bés ak aqsa googu nga xam ne lu mën a xew jullit yi duñu ko bàyyee kenn ndax li koy firndee rek maanaam lu tolloog fukki weer julli na di jublu julli yi te booba jullagun jublu kaaba ga comme nii ba ginnaaw bi yonent bi jotee ndigal ñu doog a jublu ci kaaba ga kon loolu rek day day gën a firndeel ne am na wàccuwaay bu mag ci diine eh, beneen bi topp tamit eh, li ci gën a xew te muy tooñ gi nga xam ne ñëpp jàpp na mooy tooñ gi nga xam ne tey jii mu indi lépp loolu mi ngi xew ginnaaw deuxième eh, guerre mondiale deuxième guerre mondiale mën nañu jàpp ne ci la xew yëpp am nga xam nga ne ay boori dix-neuvième siècle ci lañu créé woon lii di Ottoman treizième siècle yooyu yëpp di ay waxtu yoo xam ne toftaluwaat na ci ci fàttali tamit euh, wax naa leen léegi ne tooñ gi gën a mag ci àdduna lii def ci bokk ndax bu ñu xoolee boori mille cinq cent ki ñuy wax Yafu Salim moom moo nekkoon xalif bu Palestine def ko dëkku julit def ko dëkku diine ñu di ay sunnit di fa jàmm yàlla jàmm yàlla gu sax Palestine yëpp booba Israël gi existe gul kenn xamagu ko te jamono yëpp nag booba juif yi nekkul fa ndax juif ñoom dafa am ay jàppante yu am jiitu lii ñoom ñëpp ñu tasaaroo ci àdduna bi ñi nekk ci boori Amérique centrale ñi nekk zone Europe bi ñoom ñëpp ñu tasaaroo génn carrément ndëkku Palestine bàyyi leen fa moo joxoon ne dix-neuvième siècle yi ma leen di wax mais euh, bin àgg see ci Euh, fin au dix-neuvième siècle bi ottoman euh, bi nga xam ne aussi créé woon nañ ko te yaawu Salim ñoom ñëpp jiite woon ko ginnaaw bi dëkk yi nga xam ne dañoo tënk woon ci loolu ci biir Palestine dañoo mujjoon daal di génn fo mel ne Grèce euh, gi nga xam ne léegi mu ci Europe Égypte Algérie Tunisie dëkk yooyu yëpp dañoo mujj daal di génn biñ ci génnee nag dafa wàññi doole yi Palestine wàññi doole ottoman bi lool sax ba ci jamono yooyu xam ngeen ne ci la guerre première guerre mondiale daal di éclaté 1914 gaañ ñi daal di gën a néew doole nag rawatina ci jamono itam aussi euh, la grande révolte bu pays arabe yi maanaam révolte bu mag bi nga xam ne dëkk arabe ñoo ko defoon te Al Hassan Ali moom di ab sërif ca mag jiite woon ko. loolu ngir bëggoon a libérer dëkku arab yëpp ngir créer benn empire bu mag ma boo xam ne euh, da koy tudde euh, état arabe ngir ñoom it ñu gën a boole seen ay doole 1917 toujours ñu ngi woon ci allahu akbar allahu akbar allahu akbar ba tey 1917 ci première guerre mondiale bi euh, Ottoman boobu nag daal di tas bi mu tasee nag ci jamono yooyu la Angleterre daal di profito daal di euh, yilif di Palestine teg loxo Palestine booba euh, juif yi ñoom bi ñu yëgee ne Ottoman tas na rek ñoom it ci leen créé benn mbootaay bu ñuy woowee chauviniste te ku ñuy wax Théodore Archer daal di koy jiite moom it. ñu am seen drapeau boo xam ne mooy drapeau bii ngeen xam bu Israël bii am bleu blanc bi tam am benn biddiw ci digg bi ndax ñoom it euh, jamono yooyu tasaaroo woon nanu ci àdduna bi comme ni ma ko waxee léegi ci Europe ak États-Unis ak dëkk yu bari Amérique centrale dëkk yëpp dañ fa tasaaroo woon léegi nag ñu ne ñoom dañoo bëgg a euh, créer seen benn état bopp ca Palestine foofu nag lañ bëgg mu amee fa maanaam dellu ci seen dëkk cosaan boobu. te jàpp nañu ne ñoom ci histoire foofu am nan fa ay dogal te war nañ fa mën a dellu comme ni mu ko waxee woon léegi ci aspect religieux bi ak seen yonent yi nga xam ne jiitu woon na fa jamono 1897 ca Suisse foofu loon amal waxtaan bi daal ne ñoom nanu fexe daal delluwaat te seen dëkk boobule maam immigré delluwaat fa buñ fa delloo ñu laal ay pexe ñenn ñi nan fa doon ay baykat ñi doon fa ay artisan maam daal ñu fexe ba di fa dugg ndànk-ndànk ba ban fay amaat doole loolu nekkoon ay pexe yu laal lal rawatee nag di am ay doom takkante soxna ba gën fa bëri jamono yi nii doo ko commencé matoon nañ fa quarante mille personnes ñeent fukki junni nit waaye daanaka diggante 1914 euh, jàpp 1917 ci lu toll wuta ak juróomi at mat nañ fa daanaka soixante dix mille personnes juróom-ñaar fukki junni nit boobu yëpp Angleterre moo ngi jiite Eh, Palestine waaye ci armée bi nga xam ne moom la Angleterre nekkoon fa ak seen i base militaire ñi ngi doon formé wala juif yi seen biir eh, di leen wan ay pexe xeex di leen def yëpp te boobu palestiniens yi mën na ne yéegunu ci woon lu bëri mais nag eh, jamono yi nga xam ne Palestine moom commencé nañoo yëg ne gars yi ñu ngi commencé bëri te ñu ngi am doole seen biir moom ay jàmmaarloo yu dox seen diggante ak ñoom ngir bëggoon leen faa jëlee 1936 xeex boobu lu tolloog cinq mille arab ñàkk nañ seen bakkan juróomi junni ci ay arab ñàkk nañ fa seen bakkan Amina Al Ousseynou mi moo xam ne moo yor communauté arabe bi 1939 di deuxième guerre mondiale bi euh, ñoom it ñu daal di amaat ay laale yu métti waaye ci biir deuxième guerre mondiale boobu tamit ci fàttali juif yu bëri dañ cee ñàkk seen bakkan juif yu bëree bëri bëri faatu nañ ci deuxième guerre mondiale bi ndax am na ci ñoo xam ne ñu ngi leen fekkoon ca dëkki Europe yi ak Amérique ba xam ngeen sax li ci gën a yéeme bokk na ci dogal yi nga xam ne Adolf Hitler mi ngeen xam ci Allemagne jëloon na ko defoon benn loi contre juif yi fa nekk dàq leen ñenn ñu rey leen rey yu métti loolu même France tamit faat yu métti doon leen ko faat mu nekk euh, benn génocide boo xam ne même France fi mu toll nii sax. li gën a ñaaw seen histoire bokk na ci faat yu métti yi doon faat juif foofu ba nii sax juif bu tabu la ci France maanaam kenn du ko waxtaanee publiquement mu histoire yooyu nga xam ne jaar fi seen diggante ak bu fekkee ci Allemagne moom àggoon nañ ci di faat bu mujjoon sax di leen sëf ci ay bateau di leen delloowaat ca seeni réew rawatina foofu la ca Palestine ci euh, jeexantalu deuxième guerre mondiale quarante cinq lu tolloog six cent mille juifs installé wu nan foofu la ca Palestine. téeméeri junni ak ñaar fukk ci ay ay juif si 1945 boobu nag ci leen créé ONU ndax xam nga ne ginnaaw xeexu guerre mondiale bi première bi mu jeexee deuxième bi jeex ONU bi ngay dégg muy euh, maanaam mbootaayu xeet gi maam àdduna bi yëpp ñu dajale mboolem réew yi fi nekk ci leen ko créé 1945 46 ca Angleterre aussi tamit ñooñu suivi. Euh, ñu daal di jël ay dogal nag moom waa Angleterre ne moom génn na loxoom ci juif yi nga xam ne ñoom la yilifoon foofu la ca euh, Palestine daal di jox ndigal ONU ne leen nag ñoom nanu doxal seen programme ndax mbootaayu xeet gi booba jàppante yi ak laalante yi doon am bokk na ci dogal yi ñu jëloon ngir xeex yi jàmmarlooy ndax ni ñu ci doon faatu bëri na muy indi ay feebar adduna bépp di laale ci lan dajee nag moo tax léeg-léeg ñuy ne histoire lu mu rëy rëy waxtaan moo koy jeexal ba nit ñi sax dañ joxe exemple naan guerre mondiale sax ci waxtaan la mujj mooy waxtaan yi la mujj def ne léegi daal na ñëpp lëkkaloo boole arme bi mu doon benn boole suñu yëpp di dimbalante benn réew bu dalee ci kaw moromam ngir néewal ko doole na ñëpp dal ci kawam réew mu am catastrophe naturelle c'est-à-dire comme yi di xew nii ay tremblement de terre ay lakk wala yu demee noonu na la réew yëpp jàppale maanaam daal ñu saxoo ci ak jubóo goo xam ne daal bu kenn laalati moromam même bu fekkee ne am na jafe-jafe yu am ay yëngu-yëngu gis ngeen ko léeg-léeg ñu envoyé casque bleu foofu ngir ñu fexe ba def maintien de l'ordre indi fa jàmm loolu ci dëkk Afrique yi la ëppee boo demee fu mel ne ay Centrafrique Congo dëkk yooyu ba fii ci Mali da ngay gis ñu yebal fa ay armée armée boobu nag ONU du benn dëkk waaye ñëpp ñoo ko bokk armée boobu ay Maliens dañ cey bokk Sénégalais dañ cey bokk réew mu ne dañ naan la indil nangam ci ay doom nga xam ne ñooy moom armée bu ONU la. nga xam ne ñooñu toujours bu mbootaayu xeet gi waxtaanee fu ñu leen yebal ngir ñu def fay intervention daan fay dem loolu mooy waral kenn amatul droit néewal moromam doole ci lu dul ne euh, oni danoo seetaan loolu kon loolu dañuy jàpp ne lii di xew kon fële ci Palestine ak Israël lan moo waral kon ceetaan gi ba jàppante yëpp di am yëpp nag bi Angleterre teggee seen loxo ci kaw juif foofu. ci loolu nag carrément moom euh, ci la waa audi moom daal di jël ay dogal ca sensé daar daar ngir daal euh, jël lii di Israël def ko mu ab dëkk dagg ko génne ko ci biir Palestine foofa nag moom la jàppantee tàmbalee carrément coow li dëgg mooy bi waa uni reconnaître Israël def ko mu doon am réew ci biir réew jàmboor fii la histoire yi tàmbalee jàppante yooyu nag dañut dañul dañul ay laalante yu metti amaat na ginnaaw yu ba daanaka lu tolloog vingt mille arab ñoom it génnaat àdduna maanaam ñaar fukki junni arab yoo xam ne faat na leen ndax xam ngeen ne jamono yi xeex yi boobu arab yi amuñu woon ñu leen jàppale cent pour cent ay cocktail molotov lan daan yor jël ay butéelu essence def ci tooke di ko sànni ñenn ñu yore xeer te jamono yi fekk na juif yi américains may nañ leen doole Eh, ci ay armes de guerre yoo xam ne dañ ko doon yor mooy ay char de combat waaye ak avion de guerre ak ay roquettes xeet yëpp boobu arab bi amaguñ ko loolu taxoon na ba jàppante yooyu mën nañ ne juif yi dañoo gagné carrément ñii di arab yi ba ñaar fukki junni nit faat na nañ seen bakkan ginnaaw bi ñu leen joxe seen indépendance eh, foofule jamono 1948 1948 14 mai 1948. ci lan jox Israël indépendance am lii mooy tooñ gi nga xam ne États-Unis def na ko ngir euh, jàppale réewum Israël euh, chars de combay bokk na ci Merkawa mooy gënoon a am doole ci yooyu jamono ak ay avion boo xam ne ñu ngi koy wax tom de fer bokk na ci beneen bi ñuy wax lavi yi nga xam ne dañuy tiim di dóor jamono bi financé la leen Amérique doon def ngir néewal doore euh, réew mi di Palestine te jamono bii tamit Amérique am na ak lëkkaloo ak diggante dëkk yu arab yu bëri ba tax na ñooñu mënuñu woon a agir rawatina Amérique njariñ ñam fa amoon muy pétrole bi nga xam ne mu ngi ko xëcc jëm ci ñoom lan moo waral Amérique lang ci ginnaaw Israël la taxaw ne da leen di jàppale ngir néewal doole Palestine xam ngeen Amérique ci jamono yi daanaka jàpp leen ne jamono yi xeex boobu daam am lu tolloog soixante treize pour cent ce dëkk ba ay chrétien protestant la noonu protestant nag day fa nekk xeetu chrétien yi nga xam ne ci biir chrétien yi leen bokk waaye danoo wuute ak catholique yi ndax catholique yi danoo gëm jàmm jàngo bi pape beeg yu bëri bu dee protestant yi gëmuñu loolu orthodoxe tamit ñoom it wuute nañoo protestant yi ay ngëm-ngëm waaye ñoom ñëpp ay chrétien lañ léegi nag ñoom ñi dafa bokkoon liñ gëmoon nee na Jésus Christ ak dellu seem pour mu am faw état juif ñu taxawal ko état juif boobu pour ñu taxawal ko ca Israël rek leen ko mën loolu bokk na ci euh, ngëm-ngëmu américains yi ba taxoon ñu taxaw temm ci seen ngëm ci wàllum diine ne état juif moom faaw ñu taxawal ko loolu bokkoon na ci li taxoon Amérique doon financé euh, Israël ngir ñu néewal doole Palestine Palestine nag jamono yooyu maanaam dafa dem ba mujj euh, juif yi di leen buux di nangu seeni suuf di leen buux di nangu seeni suuf ñu dem ba daanaka Palestine deseetul lu bari ci suuf foofu nga xam ne Palestine dem na ba àgg ci waxatul sax waxi moom jëlee fa juif yi lay def moom ba suuf si moom duñ ko nangu ci ay loxoom foofa la mujjoon toll waaye tërëwul laala yu metti yi nga xam ne gars yi ko doon def ak njàmbaar gi doon am ñoom seen kaw ak malgré jullit yi nekk tërëwul ñee ëpp leen doole ci wàllu googu lii nag bokk na ci histoire li gën a mag ci wàllum politique tërëwul. masjid Aqsa bi nga xam ne dan na ñun ñëpp ñoo ko bokk tamit léeg-léeg juif ñëw tooñ leen fa fekk leen fa bëgg leen a yàqal bokk na ci lii mujj rek mooy ci laylatul xadr gii ñu passé ci koor gii ñu génn nin leen fa fekkee jaxase leen indi fa ay kii léeg-léeg ñu fekk fa ay nit leen dóor mbaa ñu leen gaañ yooyu yëpp tax na ba seen laale seen diggante ñoom mënul dakk nii nag ba tey tamit ñi laajte ndax Gaza ci biir Palestine la bokk wala déet Gaza ci Palestine la bokk région la ci biir Palestine fan yee passé bi Joe Biden demee mi ngi naan xeex bi du waa Israël ak Palestine waaye waa Israël ak Gaza parce que mën noon jàpp ne Gaza ñoom ñoo yore kaaraange bu Palestine mën noon jàpp waa Hamas parce que Gaza mooy dëkk bi Hamas ñoom ñoo yore arme bi nekk ci biir bande bu Gaza bande bu Gaza daanaka dañ koo dañ koo wër dañ koo wër maanaam genn côté gi maire Méditerranée bi moo féete ci côté sud bi. mooy wetuk saalum gi euh, Égypte moo fu ci beneen wàllu yëpp nag moom Israël def leen faa wër côté bépp côté nord bi rek lan xaw a dese ci côté Cisjordanie te dëkk yooyu yëpp daanaka mën na ne fii mu jamono bii ma xëy ci xeex bi gaa yi ngi dox wut si leen di leen gën leen néewul dool mu mel ne dafa nekk ruq bu ndaw boo xam ne la fa nekk ci ay nit bëri nañ trop nii may wax yéen dañoo couper courant ba couper ndox ma yemunu ci yéen a ngi yëg ne ñu ngi bombarder ay hôpital di bombarder. bërëb boo xam ne jàpp na nit ñaa ngi fay nekk ndax ñoom li ñu fas yéene mooy bu ngeen déggee Benyamine Netanyahu te lii sax jiitu woon nañu fi nekk am na ku ñu ay restaurant nekkoon fa premier ministre kàddu yu gën a yéeme yi la ñu wax boole bañ lislaam bañ bu metti ne nit ñi nan daw génn ndax li ñu bëgg mooy gàddaay loolu ñu génn réew mooy ñoom ñu tiim ko bombardé ko ba mu mokk rumbox ñu samp fa seen i kër bëgg faa dëkkee loolu moo waral Benyamine Netanyahu ne na ñëpp daw jëm ci côté sud bi. maanaam xanaa pour bëgg Égypte ubbi leen ay buntu ñoom ñu daw dem ñu rajo xëree ma ba mu mokk ñu bale ko defaat xanaa muy seen dëkk loolu lañ bëgg te lii nag am na doomu jullit yu fa nekk yoo xam ne buñ doon dee sax xalaatun di daw di fa génn te yëpp nag nanu xam ne jamono bi muy am ngir juif yi bëgg a nanguwaat foofu te bis buñ réussir Gaza noonu la ñuy songawaat ci biir arab yi tey tamit mën nañ koo songa noonu ba mas masjidu Aqsa gi def fa seen yeneen dëkkuwaay comme ñoom ñu ko bëggee te boobaan kenn du ci mën dara lii lépp jamono bi muy am mboolem dëkk yi réew jullit yi màkk gi nga xam ne fa la yonent bi dëkkoon te voyage bi foofa la am nga xam ne xam nañ li xew lépp jamono bii moom taluñu ko ñu ngi ci championnat lu Sadio Mané di dugal lu Cristiano Ronaldo di dugal lu keneen ak keneen di dugal Neymar ak nangam ñoom ci loolu lañ concentré wu doo ci dégg sax seen baat réew yi gën a mag nga xam ne waroon nañoo am doole yi àddu sax wax déggu leen ci ñuy wax te nii may wax yéen amul guddi muy bëccëg boo xam ne faat seeni bakkan amul lim bi faat fi mu nit mun la koo wax te bu plus ñuy gën di seetaan ndax ñoom li ndox mooy du ñu arrêté Amérique barki dem bi ñu fa demee li Joe Biden doon wax bëgg a jaxas xel nit ñi donc moo tax mooy la ñee bokkunu ci ñi waaye ki yor sa kaaraange mooy yow te ñoom ñëpp ñoo bokk gëm muy lislaam luñ gëm ak saxal ko foofa loolu nag bëgg gëm gëmloo nit ñi ne seen yoon nekku ci rek loolu moo waral te na ñële ay terroriste lan bëgg leen a topp seen kaw di leen faat ban jeex tàkk lii mooy li xew lii nag ku ci mënul dara tamit war ko mën a mettul sa xol waaye li ci gën a mett ci àdduna mooy jamono bii moom nit ñi tëruñu ko ndax mboolem dëkk jullit yi nga xam ne ñu ngi ko yëg tay jii nga xam ne Amérique lépp luy pexe nos mabbu Palestine googu di dëkk jullit foofu lan koy nose te seen doole ci alal yëpp di ngeen barki dem cent million de dollars yoo xam ne bëgg nañ ko dimbali leen ko te laataa sax lan fa dugal ci alal kenn mun laa wax lu ñu toll ñun jamono bi am na doomu jullit yoo xam ne ña ngay daw jëm ci dëkki tubaab yi laa mën a wax ngir am ko am ñun moom fàtte nan suñ diine suñ ginnaaw ñu ci bari bokk te ñi am doole xeex lool tamit yéyu ñu yàbbi ci ndax koom mani topp ci àdduna ñun lii mooy suñu jafe-jafe nag nañ ñaan yàlla mi nga xam ne mooy borom jaam te lu aaru moo ko yow yàlla yàlla na ci Palestine gi yàlla na nga yëkkati ndamul islam ci dëkku Palestine gi yàlla na nga yëkkati ndamul islam ba lii moomeelu lislaam foofu la ci bërëb yooyu rek suñ borom ñoo ngi lay ñaan nga téyel nu ko ndax yonent yi fa jiitu yëpp gëm nañu ni ay jullit lan laan farriqu bayna ahadin min rusulihi ñun de li ñu yàlla gëmal mooy amul xajjal kenn ci yonent yi ba tax na ñun Moussa Xiisa Souleymane Daawuda ñëpp ay jullit lañ leen jawantu muslimoon ñoom ñëpp ay jullit lañ waaye noonu lislaam bi taxaw ma ci mabbu ko te it buñ mabbee foofu nanu xam ne état juif ak mboolem ñaam doole ngir mabbu lislaam duñ fa jógee mukk te daluñ ci yeneen réew yu mag yi te liñ cay dal sax nag politiquement mooy dañuy xool lépp luy bànneex yi neex-neex ñu dugal ko seen xel li xew Qatar barki mu wane na ko mooy dëkk arab yoo xam ne daanaka lépp luy xeetu po danoo fegu woon ci mbir yu mel noonu dem nañ ba fi ni toll ñu fexe ba pom yi gën a mag ci àdduna bi ñu créé ko fa muy coupe du monde lam fa bàyyi tey jii dem nañ ba képp koy noos wala ngay fo yaakaar nga ne ci dëkk boobu nga ko war pare nañ ci Qatar pare nañ ci Qatar léegi nag pare nan aussi tam ci du Dubaï. li ci des mooy suñu diggante ak Arabie Saoudite gi te Arabie Saoudite ginnaaw ñu ngi nangu championnat yi gën mag nga xam ne dëkk boo xam ne jigéen daw fa dawal oto daw dem ci place yu mag yi lépp léegi saxal nañ ko foofu loolu ñu ngi ko fay def bu ca kanamee tuuti Arabie Saoudite mi ngi fexe naka lay def ba organiser coupe du monde bu ko organiser ba pare lu xewaat ci àdduna yàlla na ump jullit boo xam ne yaa ngi dund te gëm yàlla ko yonentam FPCW